أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله كاشف الغمة وصلاته وسلامه على شفيع الأمة وعلى آله وصحبه الأئمة ومن تبعهم بإحسان واسترشد برشدهم إلى يوم القيامة مشاهدي ومشاهداتي لز تي في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi yéen ñi baaxoo di seetaan lës TV rawatina seen jotaay waxtaan bii di tudd ndaw ak diine nga xam ne tàmm nañ di si waxtaan ak yéen ñu ngi di jégalu mbokk yi balaa ñu koy fàtte ndax yàgg nañ bokk ak yéen ay jotaay rawatina ci weeru koor gi mais comme weeru koor gi leen dafa nekk jamono bu xaw a spécial par rapport ak li xew moo tax itam ñu nekkoon ci ay xëy na jafe-jafe pour nekk pour dugg pour pour dugg dakaar wala boog pour toog Dakar wala pour jëfandiku jëflanteeg waa Dakaaru yëpp am na si moo tax tey yàlla may nañu tey ñu mën a toog fas yéene jàkkaarloo ak yéen kémtalaayu ay minutes ngir def tënk wala jàngat li nga xam ne moom mooy xew-xew bi fi mu toll su ma waxee xew-xew bi mooy fi réew mi toll tey si yëngu-yëngu fi ma waxee xew-xew bi mooy fi ñu toll si wàllu liggéey wàllu liggéey la axakay ndax jaamu yàlla bu rëy bu toll ni weeru koor yàlla indil ñu ko mu nekk bonus nga am fukki weer ak ñaar benn weer bi mu nekk comme si yow comme station ndax chauffeur bu yor oto di dawal ba àgg si station dana fa soxla ñetti mbir dina soxla raxasaat oto ba mu set dina soxla itam jël carburant waaye dina soxla itam def entretien pour oto bi mën a gën a dawaat doomu aadama nag ngeen baal ma bi ko yàlla bindee doomu aadama bi ko yàlla bindee may ko defal ko mu nekk jullit def ko mu nekk jullit ba pare mu indil ko ci nekk jullit googu mu nekk jullit yàlla may ko lu toll ni weeru koor weeru koor gi nekk jamono boo xam ne jamono bonis la nit ñi waroon ci mën a jëfandikoo waroon ci def waroon si def taxaw seetlu yàlla indil ñu indil ñu lu toll ni lu toll ni coronavirus mu nekk pandémie mu nekk jàngoro joo xam ne tey ñi nga xam ne ñoom ñooy saytu ci wàllu médecine nekk ay ci wàllu ci wàllu virus ba léegi mënuñ la wax ne nii la mel wala fii lañ jëm ak moom loolu lan lay wane dafay wane ne yàlla rek moom mooy buur bi nga xam ne moom moo am kàttan bi xam te man lépp lan lan lay wane dafay wane ne li nga xam ne moom mooy tëralinu àdduna bi nit ñi bi nit ñi toll tey dafay wane seen cuune dafay wane seen tële waaye dafay wane màggaayu borom bi subhanahu wa taala xoolal luy bëgg a jege luy bëgg a jege ñeenti weer wala ñetti weer nit ñi ñi ngi naxante di puusante ak li nga xam ne moom mooy jàngoro ji jël nañu ay mesures pour wax ne moom mooy saafara jàngoro ji jël nañu ay digle def nañu ay digle ak ay tere loo xam ne dañoo wax ne bu buñ ko defee yàlla mën nañoo musal ci jàngoro ji ñoom waa ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy ñoom ñooy waa kër docteur mais waa docteur bi nga xam ne ñoom ñooy docteur ruux yi dafa mel ni dañoo lajj xëy na incha allah beneen émission am nañ benn mbokk bu ñu war a dalal incha allah suba wala ginnaaw suba da ngeen ko am benn mbokk boo xam ne dañu waxtaan ak moom ci ay fan yu yaatu mais ñi nga xam ne tey ñoom ñoo fi waroon toog toogal diine waroon def jàngat xam nga yàlla suñu borom def ne euh, ñaata yoon ngeen di romb si man samay kéemtaan wa kam min ayatin fi samawati wal ardi yamurruuna alayha wa hum anha muridun muridun mu ne ñaata yoon laa leen di woon ay kéemtaan yoo xam ne waroon na tax ngeen gën a xam sama sama sama kattan man seen borom waaye da ngeen may gën a wan gannaaw da ngeen di gën a féttéerlu parce que li tax ma wax féttéerlu mooy xoolal tey coronavirus bi muy doon a commencé si dëkk bi da nga gisoon ne yi dafa changé woon man dama doon wax ne am nañu chance lu tax ñu am chance mooy euh, yàlla daf ñu indil jàngoro daf ñu indil tawat mu tombeek waxtu woo xam ne waxtu wu ñaan la waxtu weeru koor nga xam ne ne awaluhu maghfira wa wasatuhu rahma awaluhu rahma wa wasatuhu maghfira wa axiruhu itqun min annaar weeru koor gi dañ koo xaaj ñetti partie première partie bi mu nekk jamono boo xam ne yërmande la beneen bi nekk njëggal beneen bi nekk njot si safara ma ne woon kon waroon nañoo mën a profité si jamono yërmande ak njëggal gi ñu jéggalu suñu borom parce que yonent bi nee na balaa moom ngeen tuddee pandémie wala épidémie wala je sais pas yéen a jàng tubaab mais balaa buy wàcc bàkkaaree tax bu wàcc bàkkaar bi mooy lan mooy man toog naa sama toog naa yore sama téléphone am naa connexion ma xool ma xool Karim mii ma xool Karim defuma daal sama diggante yàlla xam naa ne Karim waxuma defuma ma ne Karim mii tey faw ma yàq ko yow mi may seetaan li may wax xam nga ko ñaata yoon nga dégg nit koo xam ne deful waxul yàq nañ dundam ci benn ci benn pub benn benn benn annonce benn commentaire bu ñu def ci moom boobu benn bàkkaar la bàkkaar bi tax balaa bi wàcc mooy man ma toog en tant nit xam nga gis nga gis nga damay faral di wax ne il faut que ñi nga xam ne ñoom ñooy jàngale diine il faut ñuy jéem a anticiper wala boog ñuy jéem a dem vers les choses fi mbiri tollu tey parce que buñ la waxee ne la riba wax la nangam yonent bi sallallahu alayhi wax na si benn xadis ngeen baal ma ma ñëw tuuti daf ne dafa tere ay njabootam moom Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi dafa leen tere toog si mbedd mu ne leen iyaakum wal julusa dafa mel ni mu ñëw ne leen eh dama bëgg ngeen bàyyi toogaayu mbedd bi ñu ne ko yonent bi maa lanaa buddun innamaa hiya majaalisuuna natahaddasu fiihaa mu ne leen fa izaa abaytum ilal majaalis fa aatu tariqa haqqahaa qaalu wa maa haqqu tariq qaala gaddul basar wa kafful adaa wa raddu salaam wal amru bil ma'ruuf wan nahyu anil munkar je vais expliquer ça ma dam ne dama koy damay jéem nag wàcce ko comme Euh, euh, Karim man ma dégg wala ma Njaay mi toog yor téléphone am man ma dégg wala ki nga xam ne sax amul habitude du seetaan émission wu diine xam nga xale yi affaire diine ñoru leen yéen bi ne leen bàyyi leen moytu leen réseaux sociaux yi ngeen baal ma damay jéem a damay jéem a dëppale damay jéem a dëppale ñaari ñaari wax yi yéen bi ne bàyyi leen bàyyi leen réseaux sociaux yi bàyyi leen whatsapp bàyyi leen facebook bàyyi leen instagram bàyyi leen snap bàyyi leen bàyyi leen bàyyi leen ñu ne ko yaa rasulallah bu nuñ koo bàyyi yi que fa la ñu amee information fa la ñuy amee suñu suñuy ñu bëgg a jënd fa la ñu koy fekk fa la ñuy xamante suñuy xarit yi nga xam ne ñoo bokkoon classe doon jàng fa la ñuy gisanteeg sax man na am ku ñu bëgg kon mënuñu bàyyi réseaux sociaux yi réseaux sociaux ah noonu la noonu lañ koy waxee hmm? réseaux sociaux waru waaja ñu ne mu ne leen fekkente ne mun leen bàyyi Facebook ak WhatsApp nag na ngeen sàmmante yi ma leen di wax mooy bul def loo gis partagé ko ndax li ngay partagé bu fekkee fake news la am na koo xam ne yow loo partagé dafay jàpp ne Amadou Sene ba Diop mi mu wax dëgg la kon lu mu partagé gëm naa ko mu commentaire ca wax ca loo xam ne dafay am bàkkaar te kon yow itam bàkkaar da nga koy amaale wàlla bu fekkente ne mun leen a bàyyi whatsapp ak facebook fexe leen ba bu ngeen tey génn bu leen wane seen i kër am na ko naan la man de déw ma fenn maa ngi sama kër toog te pourtant mi ngi ci mbedd am na ko naan la man maa ngi sama kër di sëy te pourtant mi ngi si mbedd bi ndax lu mu togg publier ko lu mu sol photo wane ko en tant jigéen kon loolu tam nekk na lu jar a bàyyi xel mu ne bu fekkente ne mun leen a bàyyi whatsapp ak facebook na ngeen fexe ba na ngeen fexe ba xam nga tey euh, Karim mu jox la benn exemple ngay ngay ngay ngay lire benn statut whatsapp am ku tàgge mbokkam yow nga waroon sol sa daal dem jaale ji ko yow nga xool nii xam ne kii dafa am ku mu tàgge am na ko wàññeeku mais da nga koy romb doo sax doo sax dafa mel ni doo am benn yéeg is yéen ngi seetlu loolu man naka la euh, d' accord bu dee whatsapp dafa nekk tey jii dañ koy dundee comme dund suñu vie chaque jour boo gisee ku ëstati tey jii nga xam ne kii baayam la jël photo nga xam ne baayam la dafa de xanaa au moins lu gën a néew néew néew war nga ko wax si gil ligaale yàlla ko yàlla jégal mais bu fekkoon sax tey beneen pub la beneen pub boo xam ne amul bopp amul génn da nga ci nekk di commentaire ak moom di commenter commenter ba fajar d'accord ku nekk am nga liberté def li nga xam ne moom moo la neex mais dama dama sama gis-gisu boppal dama jàpp ne boo xoolee ba gis ku estati koo xam ne dafa wàññeeku wala mu estati ne dafa am soxna wala mu estati ne dafa am doom soit war nga koo dokkeel wala nga jaale ko yonent bi ne leen bu fekkee ne mu leen bàyyi Facebook ak WhatsApp na ngeen fexe ba di si digle lu baax naan na nekk na nekk li di wax naan utile ak agréable na ngeen fexe ba Facebook bi ak WhatsApp bi nga cay def loo xam ne ku xool sa annonce yow am na ñoo xam ne lépp lu lépp luñ dugal ku ko xool da nga jànge waaye am na ñoo xam ne pour ñoom dañuy caaxaan ba keroog ñu wuyu seen borom te dara leen si fekk. après nga nekk société boo xam ne société bu société hypocrite ngeen baal ma ci baat bi mais il faut que ñu waxee ko noonu xam nga boo xam ne dafa am ñaari ñaari ñaari type d'homme ñaari type bu citoyen yu fa boo xam ne sañ na def lu ko neex te dara du ko ci fekk donte ne jullit la donte ne murid la donte ne tiijaan la donte ne xaadir la sañ ne def lu ko neex mais dara du ko mais citoyen bu am na citoyen boo xam ne moom lu mu def dañ ko koy jugé lu mu def dañ koy topp tomb par tomb loolu la foofu laa tuddee ne société bi moom la war a seetaat mooy lan mooy am na koo xam ne euh, euh, muskallaf la comme ni ñu koy waxee ci wolof arab moo naan mukallaf olof abba bi naan muskallaf muskallaf mooy ku majeur moom ngeen di wax xaw ma majeur euh, majeur vacciné ah moom ngeen koy tuddee yéen xale yu jigéen yi nga xam ne tey yow li war sa yaay war na la li war sa papa war na la xam nga mooy li war sa yaay war na la bi nga demee ba gis règle bi xamal ne li war war na la sa bàkkaar léegi kenn du si natt sa yaay sa papa waaw kon mbokk yi euh, tey li ñu doon waxtaanee ngeen baal ma ndax euh, li ma bëggoon wax lépp du ma ko mën a wax ndax je voulais juste rek pour que def benn taxaw seetlu bi coronavirus bi ñëwee fi mu ñu fekkoon ak li mu doon def si ñun mais malheureusement jëlewuñ si ay jàngat coronavirus dafa ñëw gën ñu suuxal gën ñu suuxal ci def lu la neex ak wax lu la neex ak mel lu la neex te normalement dañ cee waroon a jógee en tant que ay jullit tuub delluwaat suñu borom ndax yonent bi nee ne balaa bàkkaar moo koy wàcce waaye tuub mooy tax mu yéegaat te lii nii tey war na leen ne tey jii ñoom ñëpp dañoo wax dañoo dem ba lan laa tuddee dañoo dem ba stagné loolu laa mën a mooy dem nañ ba amatuñu amatuñu fu ñu jëm maa fihimu illa xaaxirun wa mu xayir ñoom ñëpp a gëlëm dañoo gëlëm di gëlëmalaat xamatuñu fu ñu jëm moo tax ba kilifa gi di way suñu borom dañu ko taahat bi nuuri jamalika al ahlaamu yaa man huwa al xallaaqu wal allaamu mu ne yow mi nga xam ne sa leer gi xam nga leer na normalement dafa waroon a joxe leer pour nit ki mën a gindee ko xam fa mu jëm waaye leeru yàlla dem na ba gëlëmal borom xam-xam ya gën a màgg ya gën a sell moom mi nga xam ne moom mooy buur bi amal tey bind kon mbokk yi euh, waxtaan bi mu gudd mu gàtt dafa nekkoon rek taxaw seetlu taxaw seetlu taxawaayu nit ñi wala boog tolluwaayu nit ñi par rapport ak jàngoro ji ñu yàlla wàcce ndax tey leer na ñëpp ne yàlla rek mooy borom kàttan waaye dañoo lànk ñu ñëpp xam na ne yàlla mooy borom kàttan yàgg nañ koo xam mais tey gën nañ koo xam beneen ba gi des tam mooy parfois ma di ko xaw a tooñee nit ñi Oustaz Mouhamed Diop maa ngi koy nuyu DTV daf koy faral di wax yàlla dafa digle noonu lay waxee xam nga dafa yaru dafa dal noonu lay waxee yàlla dafa digle nit ñi lànk waaye corona ñëw imposé nit ñi accepté noonu la waxee mu ne ku yaru ku dal macha allah allahu yubarik fihi mu ne yàlla dafa digle nit ñi lànk corona ñëw imposé nit ñi accepté kon daal mbokk yi mu gudd mu gàtt daal tey ndaw ak dafa ñëwoon rek ngir ni ndokkeel leen ndax weeru koor gi yëpp ànd nañu ak yéen daan nañ ànd ak yéen ci waxtaan xëy na si kanam dinañ ñëw wala boog beneen jotaayu waxtaan dinañ ñëw waxtaan ak yéen ci muuru koor waxtaan ak yéen waxtaan ak yéen ci yeneen i baat pour que ñi gën a man a xam ne euh, seen seen seen YouTube Leuz TV daal dafay boole bii boor ak bee boor waaw am na ñu nekk fële ñun ñu nekk fii maag sama gars yi ñoom Rimka ak ñu nekk fële incha allah yàlla yàlla defal leen tawfeex defal ñu ko allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ngeen baal ñu àq bu baax nag baal nañ leen wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu